xam nga daaw boo ko boo ko seetee buñ ko buñ ko méngalee ak budget wu daaw bi hausse bi lu ndaw la ndax li def mooy dañoo wàññi contribution yi nga xam ne ñi ngi ko doon jëlee ci commerce bi ak ñi ngi ko doon jëlee ci population yi ndax mbas mi nga xam ne dafay jaar mbas mi dafa dafa laal commerçant yi dafa laal population yi loolu moo tax ñu xalaat naka la ñuy def ba ba wàññi ko waral naa ëpp loolu liñ ci wàññi ëpp na lool wàññi nañ ci 1 milliard cent millions yoo nga xamante ni bii wàññi nañ ko ci recette yi nga xamante ni bii recette de fonctionnement la ñu daan ko jëlee ci population yi mais dafa am leneen loo xam dafa ñëw nekk loo xam ne da cay yokku muy li ñu jëlee ci PACASEN bi muy ay fonds d'investissement yoo xam ne PACASEN moo nu ko jox nu nu suñu recette de fonctionnement yi yu génne waat ci 230 millions ko ci loolu moo tax suñu budget egsi fii mu egsi waaye su fekkee ni amuñu woon concours PACASEN bi budget bi ñuy présenté réellement deux milliards yi du ko weesu euh, daaw dañoo defan prélèvement ci fonds de fonctionnement yi ci lañ defan ci lañ defan prélèvement ndax amuñu woon aussi fonds de concours bi daan am eggul woon foofu donc pour ñu yegg foofu dañ ne woon nan puiser ñun ci suñu recette de fonctionnement andi ko ci investissement parce que man ngaa jëlee ci fonctionnement yóbbu ci investissement mais mën loo jëlee ci investissement yóbbu ci fonctionnement donc gap bi boo gisee mu toll noonu mooy daaw boo xoolee suñu budget daaw bi di nga xool ni opération bancaire bi nga xamante ni bi defar nañ opération financière bi nga xamante ni bi defar nañ ko ci biir budget bi boo xoolee ëpp na un milliard et ren noo ngi ci deux cent trente-huit loolu moo ko ndi